المعلم وعلة الحديث أسباب قفت تقداح في صحاته حين وفت مع كونه ظهير السلامة فليحدد المعلما قد رامه ما لي فيه علة تقداح في صحاته بعد سلامة تفي يدركها الحافظ بالتفرد والقرآن القلب مع قرائن فيهتدي للوهم بالإرسال أو بالوقف أو تداخل بين حديثين حكوا بحيث يقوى ما يظن فقضى بضعفه أو رابه فأعرضا والوجه في إدراكها جمع الطرق وسبع أحوال الرواة والفرق وغالبا وقوعها في السنة الرسالة كحديث البسملة في المسند ونوع الحكيم أجناس العلل لعشرة كل بها يأتي الخلل ومنه ما ليس بقادح كأن يبديل عدلا مساو حيث عن وربما أعل بالجليل كالقطعين المتاصل القوي والفسق والكذب ونوع جرح وربما قيلت لغير القدح كوصل ثبت فعلى هذا رأوا صحى معل وهو في الشادي حكوا والنسق قد أدراجه في العلل الترمذي وخصه بالعمل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 ابن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي رضي الله تعالى عنه المعل آه المعل كان وخون نانتي جوتاي بي ويسو ني آه موي واخ ليغا خامتن موم مو اديو تي علا مانام تي علا لول حديث آه cheikh waxon nañ ni nga xamante tamit moy méthode bi ñuy doxé mooy dañuy wax li cheikh ahmed shakir rahimahullah taala di wax e, suñu euh comme buntu bi dafa bok ci buntu yi nga xamante vraiment daf ko gëna yaatal manam dañuy wax directement li nga xamante mom lay wax pour mu baña a euh suñu paré inshallah allah doga ñuy doog dak maanaam suñu waxé sa yu ñu waxee li nga xam mom la wax après ñun ci lañuy indi li nga xamante mom moy suñu commentaire bi nga xamante ne moom lañ ci teg wala annotation su fekkente ne jar na ko su ko jarul ñu continuer mu ne almual cheikh ahmad shakir rahimahullah mu ne almual ismu maf'ul min a'alla wa yaqaw kathiran min kalam almutaqaddimin bi lafd alma'lul mu ne almual maanaam mooy xadis boo xam ne dafa am illa dafa am sikk maanaam mooy mu ne almual baat bi ci boppam ismu maf'ul la moy complément d'objet la bu jugé ci verbe aalla moy sikkel na ah bari na nak lu mu daan ñëw ci laqku ñi nga xamanteni ñom ñoo ñu jitu ñi ci baatu ma'lul euh mun wa zaama an-Nawawi annahu lahnun wa tarada alayhi bi annahu hakahu jamaatun min ahli al-lughah واعترض عليه بأنه حكاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب والجوهري في الصحاح والمطرزي في المغرب كما نقله العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح رحمه الله من آه امام النووي رحمه الله دفا وخني مم دفا جابني مانام اك ياق لا يقل لا سي بات بي ني دفا ياق سي بات لول مم موتاخ ني maanaam ku wax ñu bu ñu ne al maalul mu ne en réalité mu ne waaye dañ koy gaaral ne ko maanaam dañ koy opposé wu waxam jooju ne ko mbooloo ci borom xam-xamu luxa làq ñoom dañ koy wax ne dañuy wax ne dañuy wax maalul comme bokk na ci al xutrub ak imam al jawhari ci as sixax ak al matrazi ci al maghrib téeram boobu comme ni nga xamante ne noonu la ko al imam al xaafiz al iraqi rahimahullahu taala solowee ci charx bi nga xamante ne moom la def ci muqaddimat ibnu salah ci page 96 mu ne wanzur lisaan al arab aydan xoolal wanzur lisaan al arab aydan téere bu ñax lisaan al arab tam xool ko bu imam ibnu manzur rahimahullah mu wa azunnuhu min qawlihim alla ya'ullu maanaam dama yaakaar ne ci alla ya'ullu la jóge mooy ay marida maanaam mi ngi tam maanaam mooy feebar maanaam am na sikk ci yaram bi fa qiyaas ismul maf'ul minhu ma'lul maanaam kon boo qiyaasee ismu maf'ul ci loolu dangay gis ne loolu ma'lul la ah, loolu kon mooy li nga xamante ne moom la ah, Cheikh Ahmed Shakir ah, rahimahullahu taala wax ci wàllu googu noonu li nga xamante ne tamit moom nga war a xam kon ci biir li Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah waxul maanaam mooy da ngay xam ne dañuy wax mual dañuy wax muallal tamit boroo xam hadisi dañuy wax tamit lan muallal bu jóge ci àllala manam àllalahu mais loolu nekkul loo xam te ne dafa siiw ci làkk waaye boroo xam hadisi dañ koy jëfëndiko ci bu baax alxaafis al iraqi rahimahullahu taala exactement manam ci li nga xamantene mom la wax ci sharh charx muqaddimat ibn salah maanaam elmul xadis ulumul xadis bi mu koy sharh daf ne mu nek at taqyid wal idah tere tere non la tud bi muy charx muqaddimat ibn salah at taqyid wal idah mu wal ahsan an an yuqaalu fihi mualla lol moy di gëna rafet neena moy ñu wax muàll mu فإن الذي بلا, بلا مين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به من تعليل الصبي بالطعام maanaam parce que baatu muallal maanaam mooy buñ jëfandikoo ci ñaari laam kooku waa luxa dañ koy jëfandikoo ci baatu alhaahu bi shay maanaam mooy daf koo préoccupé ci dara maanaam wa shaxalahu bi da ko mbir da koo soxlaal ba tax mu nekk ci loola dégg nga maanaam mu nekk ko ci mbir moom maanaam mbir dafa am mbir mu ko soxlaal préoccupé loolu moom mooy kon bu jóge taalilu sabi bi taam maanaam mooy xale boo xamante ne dafa préoccupé wu ci li nga xamante ne moom lay ñam bi nga xamante ne moom la nekk euh, kon loolu moom mooy euh, li ëpp ci li nga xamante ne moom la ñuy wax imam as sakhawi dafa wax ne li nga xamantene dal mom la gis manam moy ci Fathul Mughith bi mi sharh alfiyatul hadith bu imam hafiz al-Iraqi rahmatullah alayhima manam mune ne wa ma yaqa wa ma min isti'mal ahli al-hadith lahu حيث يقولون alla lahu fulaan fa ala tariq al-isti'aara maanaam li nga xamante ne nag moom la borom xam-xam di jëfandikoo naan alla lahu fulaan loolu Euh, sens figuré kese la yaa dégg mais muall maanaam moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën siiw du muallal waaye al imam ibnu salah rahimahullahu taala moom ci boppam ci ulumul xadis wax na ne boroom xam-xamu njëkki dañ koy tuddee maalul aussi niki noonu maanaam dañ koy tuddee al maalul euh, euh, maanaam bu jugee ci al illatu wal ma'lul manam kon dañ ko qiyas ci al illatu wal ma'lul manam sik lu mo lu am sik rek lo xamantene euh dañ ko koo doyadal dafa tuuti dafa amul ñak am solo al hafiz al iraqi rahimahullah mom wax na ne batu ma'lul bi fi nga xamantene ne ci at taqyid wal idah bi nga xamantene mom la nga doon wax sank al hafiz al iraqi rahimahullah daf ni atta wa taabiru bil ma'luli mawjudun fi kalaami kathirin min ahli di exprimer wu di wax loolu dañ koy gis ci ñu bari ci borom xam-xam xadis yi mu ne mu joxe ay exemple fi kalaami tirmidhi fi jaamihi wa fi kalaami daaraqutni wa abi ahmad ibn adi وأبي عبد الله الحاكم وأبي يعلى الخليلي ورواه الحاكم في التاريخ وفي علوم الحديث أيضا عن البخاري رحمة الله عليهم آه، حديث لن يخ معلول دي يجيس إمام الترمذي في جامعة دي يخ معلول فروح حديث بخمنا مويكم حديث بي موي المعلى إمام الدار قطني رحمه الله تم دكو يجفن إمام أحمد إمام imam abu ahmad ibn adi rahimahullah da koy wax imam abu abdullah alxaakim an-naysaburi rahimahullah da koy wax imam abu ya'la alxalili itam da koy wax rahimahullah te imam alxaakim rahimahullah jëli na solo na ko ci taarix ak ci ulumul xadis ñaari téere yooyu jëli ko ci imam al buxaari rahimahullah nettale ko jëli ko kon yii yëpp day wane ah maanaam dañuy wax manam mu'al ni ñuy waxe mu'allal ni non lañuy waxe tamit lan ma'lul ñi deug bo xolé biñu al bayquniya an nukhbatun nabahaniya bi imam an nabahani rahimahullah def muhammad ibn xalifat an nabahani rahimahullah mom bokut ak yusuf ibn ismail an nabahani ndax ki mom màkka la dekkone don jangal foofu ci juma yent bi sal ci juma Makka bi astaghfirullah juma Kaaba gi amma benen nabahani bi Yusuf ibn Ismaïl nabahani kok beirut la nekkoon Liban waaw bon nekkoon misr egypt fa la jange rek jàngee na fa jamono ju yag bok waaye te rew ko jàng ci yeneen rew yu bari waaye beirut la dëkkoon kon ñom ñaar duñ ben mais ci an borom nukhbatun nab an nukhbatun nabahani ta sharh manzumatul bayquniya rahimahullah mom dangay gis bi ñëwee da al mu àllal la wax moom moom al mu àllal la jëfandikoo et cetera euh, kon loolu hmm, moom lañ doon wax ci lii imam hmm, li wax moom al imam euh, voilà mom manam le Cheikh Ahmad Shakir rahimahullah taala wax ci mbir moom moom mu ne wa hada maanaam Cheikh Ahmad Shakir rahimahullah continue di wax mu ne wa hada al fann min adaq funun al hadith wa awasiha bal huwa ra's ulumihi wa ashrafiha ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ولهذا لم يتك تكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعته والترمذي والدار قطني رحمة الله عليه آه منى فن جيدي day bokk فن ci fànn yi nga xamante ne ñoom ñoo yi ci gën a xóot euh, gën cee jafe d'ailleurs sax moom mooy njiitu xeeti xam-xamu xadis yi ba pare gën cee tedd mooy seen bopp moo ci gën a tedd ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom mokkal gu bari ak xam lu baree bari info jot information yu bari xóot ci niñ ko xamee sew niñ ko xamee ba pare am dégg-dégg compréhension boo xamante ne dafa bët te kawe ñoom rek rek rek ñooy am jàppandal ñooy am euh, mais mise ci li nga xamante ne moom mooy xam-xam bi wa ne lii moom moo tax lu bare bari maanaam lu néew a néew kese ñoo wax ci xam-xam bi ci ñoom borom xadis yi mu joxe exemple comme Ibnul Madini ak mais yelloo woon na mu joxe woon exemple d'abord ki nga xamante ne moom mooy ki ñu jële ci moom mooy Yaxya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah hmm? moom Ahmad ibn Hanbal Yaxya ibn ah, ah, ah, Ali ibn al-Madini ak kat Yaxya ibn Ma'in tuddaalewu ko te kooku tamit ku ci am solo la rahimahullah rahmatullah ak imam al-Bukhari ak imam eh, eh, eh, Ishaq ibn Rahawayh kooku tamit daf ko tuddaale te tuddaalewu ko ها امر امر ابن علي الفلاس اه دنگ اكون امام البخاري امام مسلم تم ابن الحجاج رحمه الله تم كوتي ايون آه، لا ها اه يعقوب ابن ابي شيبه امام ابو حاتم الرازي امام ابو زرعه الرازي امام الترمذي امام الدارقطني رحمه الله عليهم منو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله داني وقد ألفت فيه كتب خاصة فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر ومنها كتاب العلل لابن أبي حاتم وقد طبع في مصر في مصر في مجلدين وأكبرها وأنفعها كتاب وأكبرها وأنفعها كتاب الدار قطري وقد فكرنا مرارا في طبعه ولكننا لم نجد منه نسخة كاملة فإن الموجود في دار الكتب المصرية غير تامة mu ne am na ay téere yoo xamante ne particulièrement dañ ko ciy bind te bokk na ci mooy kitaabul elal gis nga elal yi xadis yi parce que al ellatul xadis ella pluriel bi mooy al elal ah, mm, kon def nañ ko ci jeexitalu sunan maanaam imam at-Tirmidhi rahimahullah moo tax mu ñoom ñaar gis nga booy boo yore sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah da gis ci ginnaaw gi bu paree rek da gis ñu indi kitaabul ilal hmm. ah, mais mu ne da ko résumé muxtasar la bokk na ci kitaabul ilal bu ibnu abi xaatim rahimahullah mu ne fële ca misra tamit bind nañ ci ñaari ah, maanaam maanaam ci fa eh, eh, bu ibnu abi xaatim bi eh, kii nañ ko ca misra nañ ko ca mu nekk ñaari tom ah, waaye bi ci gën a mag wa akbaruha wa anfawa bi ci gën a mag gën ci ëpp njariñ ëpp ci njariñ mooy kitaabu Daaraqutni moom ak Daaraqutni rahmatullahi kitaab Ilaal bu Daaraqutni mu ne xalaat nañ lu bare bare ci eh, édité ko mu ne waaye ñun gisuñu ci maanaam nusxa maanaam mooy manuscrit boo xamante ne dafa mat dafa complet eh, parce Euh, bi nekk ci daarul kutubil misriya nekkul boo xam ne dafa mat manuscrit bi nekk foofu bokkul wax ci yi nga xam te ne euh, dañoo mat euh, waaye walillahi alhamdu wal minna ci at yi weesu maanaam édité nañu kitaabu ilal ilal bi waaw bu imam ad-Daaraqutni waaw maanaam jël nañ ko macha allah dajale ko ko édité ko ولله الحمد والمنه آه، من وقد حكى المصنف المصنف وقد حكى المصنف في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول ولم أره ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة من آه، بروم تيربيدي موي الإمام السيوطي رحمه الله نتلنا كي التدريب من تدريب الراوي شرحه bu imam annawawi rahimahullah ne alxaafiz ibnu xajar al asqalaani rahimahullah taalif ne ab téere bu mu tudd ci elal bu mu tuddee azzaharul matluul fil xabaril maaluul gis nga fil xabaril maaluul mu ne waaye Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah nee na man gisuma ko nee na moom ko nee na su fekkonte ne de am maanaam mënoon nañ ko gis de ci sama gis-gis téere bi mooy nekk damaam téere la bu yelloo ci ñu tasaare ko ndax alxaafis ibn xajar rahimahullah dafa sew ni nga xamante ne noonu lay géndee ko noonu lay xoolee mbir yi ba pare bari li nga xamante ne moom lay gis dafa bari lu mu gis moom te def na njort de ne moom dafa dajale mboolem li nga xamante ne ñu njëkk ñi wax nañ ko ci imaam yi ci ay ahadis yoo xamante ne dañ ko dafa am ella ahadis al maalula moy hadith yo xamne dañ ko dafa am ay sikku yu ci nek ah kon wa kalam, ala ala ilal al ahadith mufarraqan fi kutubin kasira dañu gis ne hadith ah, yi nga xamantene ñom ñoo ah, am sikk dañoo tasaro ci ay téere yu bari Muna min ahammiha bok na ci ci ëpp solo moy nasbu raya fi takhrij ahadith al hidayah بالمن للحافظ الزيلعي بمن الزيلع والتلخيص من تلخيص الحبير وفتح الباري فتح الباري كلاهما يعني كلين بند من الحافظ ابن حجر الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر الأسقلاني رحمه الله ونيل الأوطار ونيل الأوطار في أسراري منتقى الأخبار من للشوكاني من الشوكاني رحمه والمحلى المحلى بكر الإمام الحجة أبو محمد أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله وكتاب تهذيب سنن آه، سنن أبي داود كتاب تهذيب سنن أبو داود للعلامة المحقق ابن القيم الجوزي رحمه الله ابن القيم الجوزي رحمه الله كون لول موي ليغا خامن موم لا الشيخ احمد شاكر Ahmed Shakir wax ci téere bi en réalité آه، ki nga xamante maanaam li nga xam ne moom lañ bi ñuy taalif eh, elal yi biñ leen di taalif au départ maanaam yu njëkk yi ay laaj la woon rek ak ay tontu ak ay question yoo xamante ne dañuy tasaaroo ci biir maanaam ak ay njariñ bokk yoo xam ne dañuy tasaaroo di aju ci góor yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci càllala yi ndax wër nañ ndax wéruñu lan moy seen problème est ce que juumuñu fi bi ñu nettali nangam ak sikki nga xamne mom la hadith yi mëna a am euh, lolu nak borom xam-xam yi dañ ko doon laaj ñu mag ni euh motax lu ëppaan ci yoy bo leen da ngay gis ne boko xolé ay manam day aju rek ci góor ñi manam diw sangam limu netali ndax nangam et cetera moo tax lu bare bari ci téere yooyu boo leen xoolee sama borom subhaanahu yombal na bañu nekk yoo xam ne génn nañ euh, yi ci gën a ràññeeku nag te yenn yi al Cheikh Ahmad Shakir rahimahullah tudd na leen yenn yi tudd leen mooy at taarixu wala ilal bu al imam Abu Zakaria Yahya ibnu Ma'in al Baghdadi رحمة الله مم مم لن يحسنك نيلون نيتدوك مم مينجن أدنى أنا دوس نتران تراجعنا قد أين تبي صلى الله عليه وسلم بوابناك الإمام أبو الفضل العباس ابن محمد الدوري مم ويكن خمن موك صلى الله عليه وسلم أم نتمت بو الإمام علي ابن ابن عبد الله المديني الإمام علي ابن المديني moom abul fadl moom euh, euh, abul xuseyn abul xasan bokk aliin ibnu ma parce que euh, ñi tudd aliin dañ leen koy dàqantale itam abu abul xasan aliin ibnu abdullah almadini rahimahullah moom tam mi ngi génn àdduna année deux cent trente quatre ginnaaw ga àddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñu imaam al buxaari rahimahullah moom dafa am ay téere yu ngan yu rëy yoo xamante ne yu am solo la yu hmm, ci ilalul xadis waaye bii mooy bi nga xamante ne mom lañ ci solo manam mom lañ ci euh, éditer manam mom moy bi nga xam mom moom exister fi ci yi éditer manam moy téré bi al al rek la tuddu euh talibem ñuy wax Ibn al-Bara manam mom non mom moko solo ci mom téré bi nak bu al imam ibn Ali ibn al-Madini bi bok na ci limu mu ko mooy dafa am ay fondement yu le yu bari yoo xamante ne wala yenn yoo xamante ne daf koo indi ci xam-xamu elal bi ak niveau yi nga xamante ne tabaqaat yi nga xamante ne moom la ñiy solo xadiis yi di maanaam amee maanaam ak sikk yi nga xamante ne moom moo am ci niveau boobu benn bu ci nekk ci niveau yi mu détaillé ko par rapport ak niveau bi nga nekk ci dëkk yi nga xamante ne ñoom yu wuute ci dëkk l'islam yi waaw ak tamit autour de kan comme maanaam ñu naan madaarul ahadis maanaam euh, hadis yi ci ci ñan ñooy nekk ay pivot yi nga xamante ne hadis yi au souvent dañuy faral de tourner ci ñoom ci jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum ba ci moom jamono moom Ali ibn al-Madini rahimahullah euh, al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani rahimahullah euh, imaamu madhab xanaabila rahmatullah alayhim nga xamante ne moom mi génn àdduna deux cent quarante et un ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit bind na téere bu tudd noonu al rek la tudd euh, mbooloo ci taalibe bi solo nañ ko ci moom maanaam solo nañ ci moom téere yooyu noonu moo tax euh, comme am na al mm, al ilal wa maarifatu rijaal boo xam te ne doomam moo ko solo ci moom mooy doomam mooy abdullah parce que doomam bi moom moo solo tam musnad bi moo solo téeram yu bari mooy abdullah ibn ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani moom mi ngi gaa génn àdduna deux cent quatre-vingt-dix ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, niki noonu doomam jooju maanaam ah, ah, ak ak ak ak beneen doomam aussi muy saalix parce que dafa am doomam tam bu tudd saalix ahmad ibn hanbal rahimahullah ak domam ji abdullah bi ak talibim al marwazi ak al almaymuni ñom ñep dañu solo ci mom ben téré bo xamante tamit téré ilal la bu tudd aljaamiu fi fi l ilal wa maarifati ar-rijal amna tamit imam at-tirmidhi rahimahullah mom moom al ilal al kabir ak tamit ilal bi nga xamante manam mom moy biñu manam moy maanaam bi mu def ci جامع الترمذي بي موم امام الترمذي ميغي تودو مانام ابو عيسى الامام ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورات الترمذي ميغين رحمه الله ميغين ارنا 279 غينا غادا يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم ا واي العلل العلل الكبير بي العلل الكبير بي ني nga xamantene mom mom la bind tof nek lu won lu ordonné wu manam toftalewuñ ko won waaye ginnaaw gi la ko al imam euh, abul walid al qaadi rahimahullah toftale kon yii ay te kii la yoo xamante ne boo ko seetloo maanaam mooy yu façon yu njëkk yi mooy première génération boobu ñoom bi ñu doon bind téere yi souvent kon ñoom comme niñ la ko waxe ay tontu laaj ak tont rek la daan doon ak ay njariñ yoo xamante ne day tasaaroo ci aju ci yenn xeetu xadis yi nan la sikkee ak yenn nit ñi nan lañ nekkee ci càllale yi nga xamante ne tamit da ngeen da ngay jóge ci jeune ci maanaam de euh, euh, euh, amul woon ordre boo xamante ne dañ naan ordre bi lañ ko sol maanaam la la topp day wax rek ci ni nga xamante ne maanaam moom mooy Euh, à part peut-être bu al imam ali ibn al madini bi rahimahullah bi nga xamante ne moom lañ la waxoon ne def ko toftale ci hmm, euh, fondement yi nga xamante ne maanaam maanaam moom la def ak maanaam ci niveau yi aussi niveau yi li ko dalee ci jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum ba ci moom ñan la xadis yi di wër-wërloo ci dëkk bu nekk boo demee waa Sham par exemple saxaaba yi radiyallahu anhum diw ak diw ak diw ñoom ñooy xadis yi solo yi ñuy solo et cetera ci ñoom souvent diw la et cetera ba pare ñooñu tamit pivo yi nga xam ne ñoo jëlee ci ñoom diw ak diw ak diw ak diw la maanaam de telle sorte que dangay mën a daal di gaaw a xàmmee sikki nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xadis yi et cetera ba ci jamono moom gis nga euh, mais sinon yi ci des yëpp amul woon daanaka presque ordre ci wàllu googu noonu léegi nag euh, euh, ba ba tay sax téré bobu déssé won déssé na am ordre manam ci bok gisé di nga gis né déssé na am ordre euh, waaye ginnaw gi ñu bind nak ay téré yo xamante ne dañ leena talif ci ordre bu précis euh, toftale ko bu boba yoy da ngay gis né ay catégorie lañ tamit amna catégorie bo xamante ne ci élal rek lay wax am catégorie bu xamante ne ñoom élal yi dañoo duggaale ci biir maanaam dafa am ay gëstu yu ñuy gëstu ay recherche yu ñuy def ay xeeti xam-xam yu ñuy traité xelal yi duggaale ci biir maanaam euh, bu fekkente ne groupe bu njëkk bi la nga xamante ne dañ leen a taalif ci xelal eh, yi maanaam xelal yi lañ leen taalifi loolu euh, dafa am yoo xamante ne ci xelal yi dañ leen a taalif ci ilal yi nga xamante ne maanaam euh, d'une manière générale dañ leen a taalif ci ilal rek d'une manière générale am yoo xam te dañ leen a taalif ci ilal mais de manière particulière maanaam nga ne dañ koy bind soit ci benn téere wala ci ñaari téere wala et cetera maanaam ilal yi nekk ci téere sàngam wala yooyu noonu nga xam ne ay sew-sew la bu fekkente ne yi nga xam te ne dañ leen a bind de manière générale ci téere yi mooy lu demee at tamyiz at tamyiz boo xamante ne al imaam muslim ibnu alxajaj raximahullah abu imaam abul xusayn muslim ibnu alxajaj al qushayri an naysaburi raximahullah moo ko bindu borom saxiix bi moom comme niñ la ko xam mi ngi génn àdduna deux cent soixante et un ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa moom nag dafa bokk na ci téere yi nga xamante ne moom mooy yi nga xamante ne moom moo ëpp ëpp ëpp solo sauf que nag bariwul li nga xamante ne moom moo ci nekk parce que téere la bu ndaw quoi maanaam moom voilà lu vraiment du téere bu rëy euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, problème bi mais sinon affaire yu amañ am njariñ ci lal xam-xam bi ni toj ko leeral ko et cetera sauf que téere bi dafa tuuti euh, am na imam Abu Hatim ar-Razi moom bind na téere bu mu tuddee al-Ilal ibn Abi Hatim الرازي مرمى العيلة الله آه كون موم الامام مانو ابو حاتم نمو تدو موي عبد الله عبد الرحمن ابن محمد ابن ادريس الرازي من جن عدنا 327 لا لا مانم آه مانم موم موكو تالف رحمه الله ta mom mom mom édité nañ ko téré lu bo xamné édité nañ ko ci ñaari tom amna tamit al ilalul waarida fi al ahadith an-nabawiyya al ilalul waarida fi al ahadith an-nabawiyya bu imam ad-Daaraqutni rahimahullah mom tamit téré la bo xamné dañ ko toftale ci musnad maanaam musnadun sahaba yi radiyallahu anhum ak yéen ak ñi ci teggu et cetera nga xam ne ay question réponse la yoo xamante ne imam ad-Daaraqutni rahimahullah daf koo dañ maanaam euh, daf koo posé woon ay question ay sëriñam wala ab sëriñam bu ñu tuddee Abu Mansour ibn al-Karaxi après nag ginnaaw gi maanaam la ko maanaam la ko doon nettali nettali après nag ñu ñu gaaral ko ko moom ci boppam mu dem gaaral ko ko wan ko ko ne ko ah lii de sëriñ bi man maa ko bindoon ci yow voilà maanaam moom imam ad-Daaraqutni rahimahullah yooyu nga xamante ne moom la doon laaj sëriñam boobu Abu Mansur al-Karaxi rahimahullah moom la jël après ñëw proposé ko wane ko ne voilà ne ko mi ngi nii mu nekk téere bu am am solo mu nekk xam-xam nga xam ne xam-xam yu baree baree baree bari ñoom ñoo ci nekk waaw euh, peut-être moom mooy téere bi nga xamante ne comme ni ko imam euh, Euh, al cheikh ahmed shakir rahimahullah waxe mooy téere bi nga xamante ne mooy bi ci gën a mag mooy bi ci ëpp njariñ bi yeggsi ci ñun am na tamit al imam ad-Daaraqutni nag rahimahullah comme xamal nañ ko ni mu tudd mooy abul hasan ali ibn umar ad-Daaraqutni rahimahullah mi ngi gën a na 385 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, imam ibn al-Jawzi rahimahullahu taala ginnaaw gi bind na ci téere bu mu tuddee al ilalul mutanahiya fi l ahadith mooy al imam ibnul jawzi rahimahullah moom tamit ci ay buntu la ko toftale ba pare mu moom édité nañ ko tamit ci deux tomes maanaam mu nekk na ci ñaari tomes euh, téeréew imam ad-Daaraqutni bi rahimahullah waxoon na la ne la tamit édité nañ ko ci at yi nga xamante ne moom mooy yi wees walillahi alhamdu wal minna xoola subhaanallah suñu maanaam suñu borom subhaanahu wa taala xéewal ñu defal euh, waaye dama ragal ne ñun moyens yi nga xamante ne moom la ñu am moom mooy suñu gàllankoor gi gën a rëy maanaam euh, moyens yi dafa waroon a nekk loo xam ne daf ñuy jàppale ba nga xamante ne dañuy nekk ay biddiw ay doj ay géej ci xeetu xam-xam yépp waaye moyens yi ci seen bopp ñoom ñooy suñu gàllankoor bi gën a mag dafa mel ne wala boog bokk na ci gàllankoor yi gën a mag bon c'est vrai bokk na ci aussi suñu bàkkaar yi ñoo bari parce que bàkkaar yu bari day tax leeru xam-xam du mën a bari ci sa dënn lolu bok na aussi peut-être li nga xamantene mom motax moy le fait que ñun gisunu ay jambar, deug deug deug ay xéeti borom xam-xam ci suñu wet parce que su fekkonté ni gis nañ leen lolu daf ñuy pousser ci ñu xam ne ndekete xam-xam war nañ ko mëna am parce que nit ngi nii di dundandoo ñun en chair et en os am xam-xam bi nga xamantene mom lañ bëgg mom manam mom la wut mais le problème moy le fait que ñu gisunu lolu tamit presque lolu mom moy problème bi bokk na peut-être ci li nga xamante ne moom mooy problème yi mooy le fait que ñu teel la gëmloo ne la yow maanaam maanaam bri maanaam eh, eh, eh, xale du am maanaam teel la gëmloo la yow maanaam sa sa âge tollul foo war a mën amee xam-xam maanaam bu ko defee nga nekk gone gu ndaw liir pendant longtemps nga nekk liir yow ba tey dépassé guloo âge u liir pendant longtemps subhanallah gay buñ lay ciowal guy risala oh non risala si non risala risala il faut nga ki yi risala al imam ibn abi zayd al qayrawani rahmalahu bi ko bind pour xalé yu ndaw yi la won mom bi amé 17 ans la won la ko bind don ko bind pour xalé yu ndaw yi bul wax né jamono yu bokul déedéet effet xalé yu ndaw yi mën nañ ko comprendre té ko xor risala xamni xalé yu ndaw yi mën nañ comprendre langage bi ñuy wax manam moy c'est parce que diiné ci suñu bop manam ñun xam-xam ci bopom mom lañu jël maanaam gëmloo ñu ne mënuñu ko am fekk mbir mi du nonu ba paré benen bi nak moy moyens peut-être monam période bi nga xamantene mom lañu moy moy suñu problème pro benen problème moy mooy moyens yi ñu am daf ñu permettre ñu ta tax dafa tax ñu tayel manam ci xam-xam peut-être bakkar yi nak mom mo jur tàyyeel hein ah, euh ak tamit ñak am deug deug ñu la dimbali deug deug ci. maanaam nga mën a avancer normalement yëpp amaan na ay problème la dégg nga kon al imam ibnul jawzi rahimahullah kon moom bind na ci alal yooyu hmm? al alalul mutanahiya fi l ahadith al wahiya euh, yooyu d'une manière générale yooyu Euh, peut-être maanaam ñooy gën a ràññeeku daal ci téere yi nga xamante ne ñoom la ñu bind ci ordre boobu noonu maanaam nga xamante ne ci elal kese lañ ko bind ba pare de manière générale al imam ibnul jawzi nag rahimahullah mi ngi tudd abul faraj al imam al xaafiz abul faraj abdurrahman ibnu ali ibnu muhammad ibnul jawzi rahimahullah mi ngi génn àdduna 597 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon nañ ci ponkol xanaa bi lay rahmatullahi alayhi d'ailleurs moo sauvé seen mazhab ci jamono moo ko sauvé voilà moo ko sauvé vraiment ci wàllu euh, xeetu maanaam ci mazhab bi déjà ba pare moom mooy imam bi ba pare aussi ci wàllu aqida ndax xanaa bi lay rahmatullahi alayhi dañoo siiwee woon après ci nekk ay nit ñoo xam ne ay dañuy def tashbih maanaam seen aqida baaxul parce que dañuy def tashbih lu bari maanaam dañuy euh, melale yàlla comme mbindee fi voilà parce que dañuy jaawale entre tafwid ak tashbih maanaam au lieu ñu parce que dañuy comme ñoom dañu contre tawil ci aqida ñuy def tashbih ñuy def tafwid mais ci seen biir tafwid boobu dañuy juum di dem ba ci tashbih et loolu nag imam ibnul jawzi rahimahullah moo tax mu bind ci téer daf daf shubahu tashbih boobu am solo la téere bu ama am solo la ci wàllu googu noonu euh, kon mu des yi nga xamante ne dañ koo bind ci xam-xamu ilalul xadis particulièrement gaa lañ ko bind yaa ngi dégg mais euh, mais dafa am lu ko tax a jóg waaw maanaam soit ay xam-xam maanaam ay elal yoo xamante ne elalu xadisu imam sàngam comme par exemple elalu ahadisu zuhri gis nga boo xamante ne al imam muhammad ibn yahya moo ko bind moom mi ngeen at deux cent cinquante huit ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam par exemple wala elal ahadisu hadisu zuhri bu al imam ibnu hibban moom ci boppam imam al imam ibnu hibban al busti rahimahullah ñu génn àdduna deux cent cinquante quatre trois cent cinquante quatre ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala bokk ilalu xadis maanaam yoo xamante ne eh, mm, eh, xadis ci jëmmi boppam maanaam ab xadis ci jëmmi boppam mu am ilal loolu tamit nga xamante ne eh, léeg-léeg am na xadis yoo xamante ne ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñooy am sikk yu ci nekk am borom xam-xam rahmatullah alayhi bu ñëw bind ci téere téere ci wàllu goog comme imam al-Jurjani rahimahullah al imam al-Hafiz Abdullah ibn Yusuf al-Jurjani rahimahullah bi génn àdduna 489 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi nga xamante ne dafa bind ci xadis ci ilalu xadisul musalsalu fi yawmil iid ah, xadis boobu noonu am nak yo xamantene dañ ko bind ci tire particulier nga xamantene imam az-Zuhri bi ñu ala wax alal az-Zuhri alal hadith az-Zuhri moom imam az-Zuhri boobu moo xam moy imam moy kusi Muhammad ibn Shihab az-Zuhri min gina an 125 gina cent vingt cinq ga dayante bi sallallahu alayhi wa sallam hmm Euh, léegi téere yi nga xamante ne maanaam elal la ay elal la yoo xam dañ ko bind ci benn téere bu particulier ci benn ci ay benn téere wala ñaar maanaam yu particulier ah euh, yi ci gën a màgg mooy comme niñ ko xamee woon niñ ko xamee mooy al ilzamat wa tatabu' bu imam ad-Daraqutni rahimahullah nga xamante ne Eh, def ci ñëw luñ ñu tuuti bi na won taqadu alayhima yasira wakam kam imaam wa kam naxwa fa kam tara naxwahuma nasira biñ ci bay boobu gisoon nañ ni am na ay imam yoo xamante ne ko imam ad-Daraqutni bi rahimahullah ci al-Ilzamat wa tatabbu am na daf cee topp li nga xamante ne moom mooy ehm, saxeex yi maanaam ñaari saxeex yi di luññutu leen xool xadis yi nga xamante ne maanaam moom la gis ni am na ay sikk yu ci nekk yoo xamante ne waroon na tax ba ñoom imam yooyu waruñu ko woon indi ci seen saxeex yi gis nga téere la boo xam te ne tamit maanaam édité nañ ko ah, niki noonu ah, eh, ah, imam alxafiz abu aliin muhammad ibn ahmad al ghassani eh, al jayyaani rahimahullah bind na téere boo xamante ne maanaam moom mi ngi génn àdduna 497 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam ad-Daaraqutni comme ni ñu ko xam mi ngi génn àdduna 385 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi moom kon moom imam al al al abu ali al ghassani rahimahullah moom bind na téere bu tudd taqyidul muhmal wa tamyizul mushkil dégg nga xamante ne tamit moom tamit euh, dafa tënk hmm, takk bu baax li nga xamante ne moom la ñeen euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñaari saxeex yi ci seen nga xamante ne imaam Buxaari moom Muslim rahmatullah dañ leen indi ñoom ñu gis ne ñoom dañoo juum mu jàpp ne ñooñ dañoo juum mu daal di wane seen erreur yi nga xam ne moom la def ci loolu noonu téere la tam boo xamante ne édité nañ ko kon loolu moom moo ñuy maanaam moom mooy yi nga xam ne dañ ko bind ci xelal de manière général te ñu toftale ko yi nga xamante ne nag euh, ci biir gaaral gi maanaam ci biir ni nga xamante ne noonu la ñuy bindee téere bi ci la ci la taxu ko woon jóg yi taxu ko woon mais dañ ko ciy leeralaale lu am solo la d'ailleurs fii mën nañ koo leeralaale mooy téere yi nga xamante ne moom mooy mel ni sa ñaari saxeexe saxe imam Buxaari ak saxe ma al jaami saxeex bu euh, ak bu imam Muslim parce que imam al Buxaari rahmatullah day baamu xadis yi da ngay gis day baamu xadis yi ci place bu nekk ci ay yoon yu baree bare ngir junj ci léeg-léeg ne lii fii dafa am sikk bu ci nekk loolu moo tax nga gis xadis boo xam te ne day am sikk pourtant ci biir saxiix al Buxaari nga gis mais parce que le fait mu indi ko yoo ci yoon yu bari indi xadis bi ci yoon yu baree bari seetlu loolu moo tax téere yooyu di mat a maanaam euh, euh, gis nga euh, téere la yoo xam ne boo koy jàng di ko jàngat di ko xool bul ne rek mi ngi ci saxiix bi dafa am nuñ koy lijjantee dafa am nuñ koy liire xadis saxiix yi dañ am nuñ leen di liire boo xoolee xadis bi gis ko gisaat ko gisaat ko gisaat ko gisaat ko ci yoon yu bari léeg-léeg le fait day am benn yoon boo xam ne daf ci indi benn day am benn particularité boo xamante ne loolu particularité boobu li tax mu indi ko imam Bukhari rahimahullah daf la bëgg a wax ne la xadis bi dafa am point bi dafa am sikk maanaam c'est parce que fii dafa am sikk wala wax ji diw sàngam moo ko ci yokk waaye bokku woon ci xadis bi ak yu mel noonu waaw Euh, ni ki noonu euh, saxeex imam muslim al musnadu saxeex dam bu imam muslim rahimahullah euh, moom tamit léeg-léeg day indi ay xadis moom ci boppam wax na ko ne day indi ay xadis yoo xamante ne day ci ay yoon yoo xamante ne ne par exemple dafa am martaba borom maanaam première niveau bi ñoo ñoo ñu gën a màgg deuxième niveau bi ñooñu ba pare léeg-léeg mu ne muy leeral léeg-léeg yoo xamante ne ay mbir la maanaam yoo xamante ne ay sikk la yu am ci xadis bi voilà ay yoo xamante ne xadis bi day ñëw mu am euh, benn point boo xamante ne daf ci am xadis bi am sikk bu ci nekk mu préciser ko comme ni nga xamante ne euh, am na yuñ ci gis dégg ni ki noonu al euh, imam an nasai rahimahullah imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib an nasai rahimahullah tamit ci al-Mujtaba moy sunanam bi da ngay gis tamit muy def lu mel non nga xamantene da fay bari lo xamantene day indi ay yoon yu bare bare ci ay hadith ak ñi nga xamantene ñom ñoy euh ruwat yi ñi solo hadith yi seen wuute yi nga xamne ñom ñoy ñooy hmm voilà ak yu mel non ma motax euh bu ko defee nga mën a nga mën a xam lan mooy sikk bi nekk ci xadis sàngam wala sàngam te léeg-léeg ni mu koy indee léeg-léeg sax ci ni muy at titre bunt bi titre bi muy jox bunt bi mu dugal xadis boobu ci ngay comprendre ne parfois bu amee am na sikk sàngam bu nekk ci xadis sàngam bi nekk ci bunt bi maanaam ci boo seetloo càllale gi xoolaat ko bu baax Euh, ni ki noonu imam al-Bazzar mm, ci musnadam maanaam al-Bahru maanaam moom tamit dangay ngay gis euh, boo xamante ne da ngay gis mu indi ci ay elal ay sikk yoo xamante ne daf ko ci daf ko ci indiwaale yoo xamante ne daanaka doo toog xaw a gis feneen maanaam doo ko xaw a gis feneen muy préciser sikk yu nekk ci nang ci xadis sàngam yoo xam ne doo gis feneen Euh, comme maanaam euh, imam al bazzar nag moom mu ngi tudd moom mooy al imam al xaafiz abu bakar ahmad ibn amran voilà ñu naan ko al bazzar maanaam mu ngi génn àdduna deux cent quatre vingt ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kon yooyu yooyu boo ko xoolee yooyu benn xeet la ci façon téere yi nga xamante ne ilal yi rek taxu ñu leen jog waaye ci seen biir gëstu yi da nga ci gis ay ilal yoo xamante ne dañ koy indaale euh, niki noonu jaami'a imam at-Tirmidhi rahimahullah imam at-Tirmidhi rahimahullah boo seetloo jaami'am bi da nga ko ci gis tamit yu mel noonu euh, am na tamit li nga xamante ne moom mooy téere yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, téere yi takhriji téere takhriji bokku na ci téere yi gëna mag yi ñu xamé elal yi ba paré té en fait téere takhriji moy bu ñuy nga xamné dañuy préoccupé wu ci di solo ay hadith yo xam maanaam bokk na ci téere yi gëna mag yi gëna mag yi nga xamantene manam day jariñe pour mëna xamé xàmmee elal yi yu nekk ci euh ah, bokku na ci téere yoy téere yu bari lañ nak mais bokk na ci euh, comme ni mu préciser nasbu raaya gis nga la joxe exemple fii muy euh, nasbu raaya li ahadith al hidaya hmm, bu al imam az-Zayla'i moom mooy al imam Jalaluddin Abdullah ibnu Yusuf ibnu Muhammad az-Zayla'i mi ngi génn àdduna 726 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu euh, am na المغني عن حمل الاصفار بتخريج ما في الاحياء من الاخبار خامتني تخريج له بو الامام أه الحافظ العراقي أه رحمه الله تعالى دف تي أه احياء بو داير موم موم مي أه أه أه دا تخريج احاديث الاحياء تودي نون تاب تخريج احاديث الاحياء علوم الدين المغني عن حمل الاصفار بتخريج ما في الاحياء من الاخبار xamantene édition yu mujj yi nga xamne mom lañ def ci ihya wala mu dinañ gis ñu andal ñu boole walé ko ci euh kon al imam al hafiz abul hasan عبد الرحيم ابن الحسين العراقي رحمه الله مكو بن من ген ادنا 806 غنا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم ا نيكي نونو ا التلخيص الحبير بي ما خمت نو لا جخ اكزامبل في تامت bu al ci ci taxrij ahadith ar-rafi al-kabir bu maanaam al imam al-hafiz abul fadl shihabuddin ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullah mi ngi génn àdduna 852 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit daf ci def taxrij ahadith yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci sharh ar-rafi al-kabir ala al-wajiz nga xam ne al-wajiz téere la boo xam ne téere اما اما ام صولو لا تي فقه الشافعي بو خامتيني امام الغزالي رحمه الله تعالى مومكو بيند امام الرافعي نك رحمه الله دا فاي بيند شرح دارتي دا دارتي داف شرح بو مك شرح يوي نك داي ام اي حديث حديث يوي نك موم لا امام الحافظ بن حجر رحمه الله داف تخريج بي ني ديغ ا آه، لغي بودي بودي نصب الرايه دا مكو فاتي واخ الهدايه bo xam téréel tam bu ama am solo ci mazhab xanafiya yi rahmatullah alayhi ñu def mu def ci takhrij ah niki nonu def na ad diraya ba tay ci ci charh ahadithul hidayah manam ad dirat li sharh li li taxrij ahadithul hidayah nga xamantene mom moy al hafiz ibn hajar tam ba tay rahmatullah mom moko bind nga di téré takhrij la takhrij am solo niki nonu bon amna téré yo xamantene en fait du téere takhrij mo ci ci jëmi bopam mais ay téere la yo xam dañ ko bind mais dafa nur ak takhrij comme badrul munir bu xaafis ibnul mulaqin ak comme al imam fi maarifati ahadith al ahkam bu al imam ibn ibnul mulaqin daqiq al aid rahimahullah niki noonu am na tamit comme téere taxrij yo yoo xamante ne ba tey comme al hidayah taxrij li ahadith al bidaya par exemple téere boobu tamit dafa def taxrij bi am na tam bu ak ak ak beneen téere boo xamante ne kiiwum almanawi charx bi almanawi def ci jaa ci jaami saxir moom la def taxrij bi bu mu tuddee al imdaad suma juumu loolu la bi nga xamantene mom moy mooy ñaari téere yi ma la mujjé tuddal yëpp nak nga xam day jamm sax lu mëna Manawi ñaari téere yi ma la tuddal yëpp al-Hafiz Ahmad ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari mom moko bind radhiyallahu euh amna ñeneen yeneen i téere yoo xamante ay téré taxrij la al Cheikh Muhammad al-Hafiz gis na mu def ay téré taxrij tam yu bind euh et cetera euh ak ñeneen rahmatullah al jami' ala kulli xaal ay téere taxrij yi moom téere taxrij yi tam téere yu bari la te yu mat am lañ yu mat a yu mat a jëlee parce que day tax nga xam xadis yi fan lañu ñan ñoo leen solo nan lañ leen solowee ci yan yoon lañ ñëwee et cetera ak tamit léegi nag mu des kan moo ko wéral kan moo ko wéralul ñaata voilà ak kan nan lañ leen euh, ñi ko wéralul lan moo tax wéraluñ ko bu fekkente ne am na ñu ko wéral nan lañ leen tonto et cetera yooyu taxrij téere taxrij ji dañ leen di indi maanaam ci xadis yi moo tax bokk na ci téere yi nga xam ne yu am am am am am am solo lañ euh, am na nag mu des téere yi nga xamante ne tamit ci biir gëstu yi nga xamante ne lañ leen di amee mooy téere yi nga xam souvent dañuy charx xadis yi mooy comme charx yi nga xamante ne lañ la waxoon téere yooyu nga xam souvent dañuy charx xadis yi moom moo al imam Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah joxe ci exemple Fathul Bari par exemple ak ak téere moom Shawkaani bi rahimahullah téere imam Shawkaani voilà voilà par exemple bobu par exemple mom motax mu joxe ko nga xamantene euh ak par exemple amna téré yo xam comme al muhalla tamit bu al imam ibn hazm rahimahullah ak tahzibu sunan abu daawuda yi ay exemple la ci en fait al muhalla moom sax euh, comme musannafat yi la mel moom ñoo joo joxoon naa la wax naa la groupe koy boole moom ñoom musannaf tahzibul asar bu at-tabari euh, ak musannaf ibn abi shayba musannaf euh, abdurrazzaq آه، رحمة الله عليهم آه، آه، شرح معاني الآثار بإمام الطب الطحاوي رحمة الله عليهم يينون دنيين بندي تي بين دومين مانام تي مي أوسي دني لنيو تحديثي فوالا اما اكزامبل كوم فتح الباري شرح بيغا خامني مومن لا شرح شرح صحيح البخاري مومن الحافظ ابن حجر رحمه الله عمدة القاري بشرح صحيح البخاري والامام الحافظ mahmoud ibn ahmad badruddin al ayni rahimahullah mi ngi génn àdduna 855 moom ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñetti at ab ginnaaw ginnaaw alxaafis ibn hajar rahimahullah ànd ak ne moom ak alxaafis ibn hajar rahimahullah ak lu demee nekk faydul qadir sharh jaami as-saghir bii nag moom la al imdaad boobu nag manam bu mom al manawi bi nga xamne mo moo la sharh jaami sahir fayd al qadir hein bu al imam al manawi moy al al imam muhammad abdurrauf ibnu taj ibnu aliin almanawi rahimahullah mu génn àdduna mille trente et un ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi ci ginnaaw gi ci la ci ci ci la alxaafis أحمد ابن محمد ابن علي ابن الصديق الغم أحمد ابن محمad ibn Siddiq al-Ghumari rahimahullah nga xam ne mag la ci al mag la ci al-Hafiz maanaam moom mooy taawu Ghumari yu ne yi en fait mooy seen taaw Ghumari yu ne yi famille lañ bu yéeme yéeme yéeme ci xeetu xam-xam musuma gis famille bu mel noonu ci xeetu xam-xam moom ñoom ñoom dañoo yéeme parce que une famille entière nga xamante ni li ko dalee ci baay bi baay bi mooy imam Muhammad ibn Siddiq al moom ñoom ay shérif lañ euh, Tanja lañ dëkk Maroc am nañu frère ba léegi buy dund mu tudd al Hasan ibn Muhammad ibn Siddiq al mais famille lañ boo xam ne mag ak rak de génération en mais mais ñëpp ah, man loolu daf loolu musuma ko gis mais xam-xam bi ñu am mii kenn mi kenn mënuuf la ko wax ci mboolem xeeti domaine xam-xam dañ koo am mboolem xeeti domaine xam-xam boo demee xadis nga dem fiq fiq mboolem mazhab bi nga dem euh, euh, aqida ilmul kalaam ak li ci aju euh, nga nga ñëw usul nga ñëw xataa tafsir tafsir nga ñëw siira luxa ak mboolem xam-xam yi tourné autour de luxa ah maanaam làkk bi ay nax wook ay balaax ak yëpp maanaam mi da nga leen ciy gis ñu nekk ay kii man maanaam ci domaine bu nekk mais niñ ci aaye man man musuma gis ñoon musuma gis ku mel ñu mel ni ñoom seen téere yi boo leen xoolee téere yi la yoo xam ne wallahi alazim buñ la waxee imam an-Nawawi moo ko bind wala ñu ne la as-Suyuti moo ko bind wala ñu wax la ne la mag ñi al-Qadi Iyad ñooñ ko bind wallahi alazim doo ko weddi da foog ne effectivement ñi non mais ñu mel man mosuma gis ñu mel noonu ay gars yi lañ yoo xam ne euh, euh, mais kenn man mus maanaam c'est impressionnant c'est-à-dire que kenn ku nekk ci ñoom ab imam la ci tasawuf ay Chazili lañ ci ci ci ci ci ci ci ci euh, tariqa tariqatu Chazili la ñoom donte nag ñoom boo leen seetloo par contre seen bind yi di nga gis ne vole tasawuf bi Euh, dañoo am niveau bi bi ñëpp am su rek voilà maanaam niveau bi nga xamante ne mooy niveau bu normal bi maanaam nga xam ne un borom xam-xam normal daf koy am maanaam nekkuñu ci ñu ñu xóot trop waaw mais xam-xamu zahir yi ngi moom man moom man dañ ma ci yiim ndax te li ci gën a yéeme mooy famille leen te képp ku nekk dañuy jàpp benn masala bind ci téere benn masala wala benn xaris wala benn bind ci téere mais ay téere lañ yoo xamante ne ci dayok am solo lañ am solo bu ñu jàppee benn masala ba di ko lëññutu mais da ngay yéemu ci yàlla te famille bi yëpp noonu lañ mel loolu moom moo garaaw aussi famille bi yëpp ñoo mel noon nga xamante ne domaine yëpp lañ bokk maîtriser ko naan mais dañ koo naan bu ñu naan diw daan naan mas euh, euh, domaine bi noonu lañ mel ñu garaaw a garaaw lañ man loolu man ñoom man c'est du jamais vu man man mosuma ko gis mosuma gis ab boo xamante ne ñoom ñëpp nii lañ mel xam nga dañ liñ daan xam mooy kii nii la mel am na benn frère bu mel ne moom wala papaam tamit noonu la meloon wala et ñu topp loolu mais ñoom ñëpp tout le monde tout le monde ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp noonu noonu loolu lu garaaw la lu kii ne la mais nag ñi ci gën a ràññee ci ñoom mooy alxaafis ahmad ibnu muhammad ibnu siddiq alxumaari ak euh, pap magab rakkam ji alxaafis abdullah ibnu muhammad ibnu siddiq alxumaari kooku peut-être sax man en tout cas ginnaaw doom ginnaaw moom ginnaaw ginnaaw magam ji moom daanaka dafa nekkoon càppaaculi ci jamono ji di nekk ki nga xamante ne moo ci gënoon a ràññeeku ci xeetu xam-xamu zahir waaw moom moom non dafa kiimaane woon moom moom mi ngi génn àdduna ci quatre-vingt année quatre-vingt-dix yi am na tamit rakkam Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Siddiq al-Xumaari ak kooku tamit ku kiimaane la ñoom ñett daal ñoo ci gën a ràññeeku mais mais ñeneen ñi ci des ñëpp tamit ñu ràññeeku lañ ci ñoom ñëpp nag te loolu mooy yimi ñoom ñëpp ay boroom xam-xam yu kiimaane la mais lu doy waar la lu doy waar la maanaam dafa dafa yéeme dafa yegg ci dayo kéemaan te ñoom seen koo fi dégg ñu koy coow muy boroom xam-xam ñu koy muy boroom xam di ponkal taalibeem ñooñu ngañ taalibe famille boobu ngeen maanaam taalibe xumaar yu nañ ngañ mais loolu lu kéemaan la eh, alxaafis abu xudda ñoom eh, ali jumaa ñoom maanaam ñëpp rek d'une manière générale ñoom ñëpp rek Mouhamed ibn Cheikh Mouhamed ibn Alawi al Maliki ñoom al imam Ali al Jufri ak ñan mais ak ñeneen hein ñoom Saïd Mamdouh ak ñan ñoom mais ñoom ñëpp rek ba ci Cheikh Chérif Salahuddin ñoom ñëpp ay maam talibé fami bobu la man amul kenn ko xamante ne nekkul taalibe famille boobu ci ku ñuy coow rek ci xeetu xam-xam moom see see xam ñu ngi rek ci coow yow taalibe ñooñu nga loolu dafa kii man non mais loolu ñoom famille boobu loolu moom famille la bu yéeme yéeme euh, bokk na ci kon maanaam mooy acteur charx yiñ la waxoon ñoom Tamhiid hmm? bu buy charxa muwatta bu imam malik et cetera maanaam téere yooyu daal xeetu téere yooyu nga xamante ne dañuy chara xadis yi yooyu souvent tamit dañ ciy fekk ay hmm? ay ay buxus ay gëstu yu am solo léeg-léeg ci ñuy wax ci benn xadis di ci di ci di ci jéem eh, di indi par exemple ay xelal yi nga xam ne ñoo ci am wala ci bu ñuy yegg ci masala yi maanaam xadis yi nga xamante ne ñoom la amal manam ñom lañu ñuy jéem a luñutu maanaam xadis yi nga xamanteni ñom lañu la ñuy luñutu foofu noonu parfois nga fekk ko ci hmm? euh amna tamit ci yenen mbir lo xamanteni lu mata bayyi xel lo ci bo xam xelal hadith Euh, fokoy fekk tamit manam euh, c'est que euh, peut-être gudduna mais yépp dañ koy joxe pour nga am manam, xam fan ngay fekk affaire yi c'est-à-dire que téré bo gisé ñukoy cité domaine presque buñ dugg ci daal wala voilà puis bind nañ ci ay téré téré sangam ak sangam lolu manam day permettre nga xam bu ma bëggee xam nangam fan la koy fekk ak tamit da lay permettre nga acquérir ale yeneen domaine en même temps waaw yooyu da koy permettre dafa bari maanaam voilà euh, par exemple tiir yi nga xamante ne dañuy wax ci fiqh mazhab bi particulièrement ba pare di di développer mazhab bu ak ay dalil souvent tiir yu mel noonu léeg-léeg nga gis ci ñu gëstu ci mais luññuti ci benn xel la la yu nekk ci xadis yoo xamante ne doo ko gis ci beneen tiir telement maanaam ni ñuy xóotee ci nit ñi parce que fuqaha yi dañoo xóot ñoom ci ni ñuy xalaate moo tax ñi nga xamante ne dañuy dañuy gëstu di seen xadi maanaam xadis yi di ko di indi dalilu seen waa mazhab yi di tontonteeg ñeneen ñi maanaam di ñooñu souvent ci xelal yi xelal yi xadis yi di am tamit dañ ciy aay parce que dañuy xam pourquoi ñoom ñu jël xadis bi ak lan lañ ban problème lañ gis ci xadis bee nga xamante ne moom la seen maanaam moom la ñeneen ñi utiliser ba tax ñoom ñu utiliser xadis yooyu noonu loolu par exemple boo demee ci al eh, eh, eh, te téere yi ci gën a ràññeeku mooy al istidkar li madahib ulama al amsar bu al imam al xaafis abu omar yusuf ibn abdul bar annamari al andalusi al maliki rahimahullah mi ngi génn àdduna comme ñu ko xamee 463 gannaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, loolu mooy ci mazhab maliki peut-être téere boobu moo ci gën a ràññeeku ci mazhab maliki ci wàllu googu noonu donte am na yeneen mais euh, ci mazhab maliki moom amaan na boobu mooy bi ci gën a ràññeeku ci lu ñu joyal amma mazhabu xanafi mm, yi euh, rahmatullahi alayhim mooy tabyinul xaqaa'iqi sharh kanz ad-daqaa'iq manam bo xamantene ci fiqhu hanafi la manam fiqhu hanafi lañ ko def manam parce que kanzu daqaiq bu al imam az-Zaylai moy borom nasbu raaya biñ doon wax sank rahmatullah alayhi manam dafa am al imam usman ibn ali ibn yahya ibn Yunus rahimahullah bi nga xamne mi ngi adna 743 ginnaaw gadda yantibi sallallahu alayhi wasallam bo xamne daf ko sharh tuddé ko tabyinul haqa'iq شرح كنز الدقائق ما نم دف مي تير لبو كي ما نه بو خمن تنا آه، آه، آه، ما نم بو خمن تنا إمام النسفي تبوم ما نم تير لبو خمن تنا إمام النسفي مرحمة الله مم موكو بند ما كنز الدقائق لكن شرح كنز الدقائق بابو مم لا إمام الزيلعي بند léegi nag euh, imaam Ousmane ibn Ali ibn Yahya ibn Yunus rahimahullah moom moo jël maanaam def ci ay gëstu ay settantal gën ko maanaam defaat ci ay annotation mais nga xamante ne daf ci indi ay mbir yu ama am solo yoo xamante ne euh, ci biir nag buy gëstu da ngay gisaale mu defaale yu mel noonu comme tamit bokk na ci ci mazhab Hanafi ba tey Fathul Qadir lil ajizil faqir kooku sharx boo xamante ne ci téere ibnu euh, ibnul Hammam bi waaw maanaam al imam ibnu hammam rahimahullah maanaam moom moo ko bind fathul qadir ndax day sharh al hidaya al hidaya bi nga xamante ne borom nasbu raaya taxriju ahadis yi la doon def maanaam dafa defoon taxriju taxriju hidaya moom la jël nag maanaam moom ibnul hammam rahimahullah al al kamal ibnul hammam maanaam muhammad ibnu abdul wahid as as siwaasi mi ngi génn àdduna 861 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa Ah, moom la moom la moom la moom la moom la ci def maanaam moom la def pour hmm? ah, ah, gëstu ci ay gëstu yu am solo téere boom par exemple dangay gis ñoom tamit yu am solo ak tamit bi bokk nag bu dee ci ma mazhab Shaafi'i rahmatullahi alayhi bi ci gën a ràññeeku ci lu ñu joyal mooy al-Majmu' bu imam an-Nawawi rahimahullah al imam an-Nawawi rahimahullah ndax daf ka bind bi mu ko bindee eh, ba ci eh, ba jeexal aj bi ba dugg kitaabul buyuu foofu ci la génne àdduna rahimahullah eh, boobu moom bu yeggoon mooy nekk ci lu ñu amul benn werante ak benn tappale téere bi gën a mat ci lislaam ci xam-xamu fiq ci lu ñu joyal waaye ba tey téerewu ko koo doon maanaam téerewu koo bokkaale ak bi ci des mooy bu xambali rahmatullah dinañ ci ñëw nga xamante ne eh, téere boobu mm, imam an-Nawawi rahmatullah moom après eh, imam euh, nu tudd hmm? euh, al imam mm, imam as-Subki rahma dafa ñëw yeggale ko moom Taqiyuddin as-Subki rahimahullah dafa ñëw yeggale ko bi bu ko yeggalee moom tamit maanaam ci kitaabul bu yoo bi la tàmbalee di yëg mais moom tamit jotu ko yeggale ki ko yeggale mooy al-Imrati rahimahullah mi nga xamante ne maanaam mi ngi génn àdduna ci siècle bii ñu weesu wala daanaka voilà daanaka ñoo xaw a bokk siècle mais bon non non siècle bi bii la ci dix-neuvième bi wala vingtième vingtième bi daal maanaam ci la génn àdduna ci biir année yooyu ah, loolu ay téré la yo xamne dañ ci fekk nga al hadith ilal xadis ah niki imam euh maanaam al-Mughni fil fiqh al-hanbali bu al imam al-Hafiz Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn qudamah al-Maqdisi rahimahullah mo lañ Muwafaquddin lañ la gën a siiwee Muwafaquddin ibn qudamah al-Maqdisi rahimahullah bi ngeen 620 ginnaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom nga xamne daf ci sharh Mukhtasar al khuraqi ci fiq xambali muxtasarul xiraqi fi fiq xambali rahimahullah euh, nga xamante ne muxtasarul xiraqi téere la bu am solo ci fiq xambali rahmatullahi alayhi nga xamante ne daf kaa jël euh, sharx daf ko ja maanaam moom daf ko jànge ci Sayyid Abdul Qadir al Jilani radiyallahu anhu bu ko jàngee ci Sayyid Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu après ci la ko bind sharx ko voilà moom imam Ibnu Qudama rahimahullah euh, kon yoy dal ñoy yi gëna am solo ci mazhab bu nek à peu près am nak amna am na ay téré yo xamantene tamit dañ leen di bind bokk na mais yi yëpp bo xolé da nga ci gis ay elal yelal yi manam boko ko gëstu bu baax manam parce que comme que li tax nak ñu yaatal ci buntu bi do fekk ne elal hadith pour détecter ko dafa jafe il faut nga bari lo gis comme niñ koy gis inshallah allah nga bari logis, gis lu bari bari bari bari ku gisul lu bari do ko mun do mën détecter elal maanaam di détecter à moins que nga sukkandikoo rek ci ñu njëkk ñi li ñu waxoon ci seen ci ilal yi boo ko xamee boo ko xamee mais sinon yow doo gis xadis rek détecter ilal yi doo ko mën en fait il faut nga bari loo gis moo tax ñu détaillé bu baax ci ci commentaire bi nii euh, am na par exemple yoo xamante ne ci début téere bi par exemple nga xam ne nit ki day jël benn téere di ko jàngale maanaam di ci di di ko sharxa par exemple ci début bi mu gis ci ay alal yoo xamante ne daf koy def maanaam daf ko ci hmm, euh, daf ko ci expliquer comme hadiyu saari muqaddimat fathul baari bi bu bi imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah nga xamante ne daf ci am ay yenn bunt yoo xamante ne daf koo teg nga xam ne dafa aju ci sikki alal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk maanaam mooy maanaam yenn buntu yoo xam ne daf ko cee def am buntu yo buntu boo xamante ne daka daka def ci maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nekk ci biir saxeex bi te am ay nit ñoo xamante ne dañ leen di jam nga xamante ne li imam ad-Daaraqutni rahimahullah euh, doon wax ci al ilzamat nga xam te ne alzamar wa tatabo mu ci doon wax di dugg ñi nga maanaam am ñoo xamante ne ci ay xadis yi nga xamante ne moom la imam ad-Daraqutni bu foofu wax ak imam Abu Ali al-Ghassani et cetera rahmatullah alayhi ne yooyu lañ doon euh, wax ci euh, ci ñaari saxexe ci xadis yooyu surtout surtout bu dee yi aju ci saxex imam Bukhari rahimahullah nga xam daf ko ciy jël di ko di ci di ci indi ay réplique di ci indi ay tontu voilà euh, niki noonu am na tamit euh, euh, téere maanaam muqaddima introduction tamit bu fatxul mulhim charx saxeex muslim rahmalah moom laa la wax ne la bi gën a baax jamono ji bi ñu tool ba ba léegi nii nii nii nii nii ñu ne ah, ah bi nga xam te ne gis nañ ko mu pare ñu édité ko ñu téye ko ñu mën mu pare moom mooy bi ci gën a mat dëgg la nag am na beneen boo xamante ne boobu moom moo gën a mat ci côté yu bari surtout boo bëggee xam ay la léegi yooyu mooy bu euh, albaxrul muxiitul sajjaaj boobu noonu charx saxiix muslim ibn xajjaaj bu al éthiopie bi di def mooy éthiopien boobu moo la doon wax te mu nekk màkka waaju aaya aaya aaya aaya la sauf que rek moom loolu laal doon wax ne la dafa am maanaam aqida wahabiti ba pare dafa am yenn ñàkk teggi ni nga xamante ne moom lay am buy wax ak xam-xam borom xam-xam rahmatullah alayhi maanaam buy dajji seeni wax mais sinon mais téere yi téere yu am solo lañ wax dëgg yàlla téere yu ama am solo lañ sauf que rek euh, def attention par rapport ak loolu moom moo gën dafa attention par rapport ak loolu moom moo gën mais sinon fatxul mulhim char euh, saxi muslim rahimahullah man moom mooy bi gën a en tout cas mooy bi gën a baax man bi ma gis bi bi bi si ba ci ñun jamono jii ñu ne moom mooy bi ci gën a mat mooy bi ci gën a baax charx bu imam an-Nawawi bi rahimahullah dafa tënk dafa ki te ànd ak imam an-Nawawi moom rahimahullah waxoon na ko nii na dama li ma ci jublu mooy tënk téere bi saxih muslim bi xoolal subhaanallah nga xam ne charx saxih charxu téere xadis saxih muslim da koo tënk imam an-Nawawi da koo tënk tënk tënk tënk tënk nga xam ne du ci luññutu sax ay yenn masala xadis yu bari te boo comparé te téere xadis la xool téere fiq bi nga xamante ne moom mooy al nga xamante ni da ciy jàpp xadis yi luññutu ko def ci ay étude xóotal ko te deful lool ci Sahih Sahih Muslim bi te wax na ne bu ma bindoon Sahih Sahih Muslim dëgg dëgg dëgg dëgg ni mu ko bëgg a binde day dana dana ëpp téeméeri tom day ëpp cent tom ah te effectivement sarx sax mus en fait muslim téere la boo xam te en réalité ku ko sarx dëgg-dëgg niñ koy sara en fait di nga bind lu ëpp loolu lu ëpp téeméeri tom kooku mënul ñu ak parce que ni mu mel la maanaam sax muslim allah allah allah ni la moo tax dégg euh, euh, al al al al maam imam bu mu mag la maam borom xam-xam bu rëy rëy rëy rëy muy al cheikh Shabir Ahmad al Asmani ad-Diyubandi rahimahullah mooy indo la ab indo moom introduction bi mu def ci Fathul Mulhim rahimahullah waxoon naa la ne la moom yeggalewu ko keneen moo ko yeggale maanaam mais charx boobu charx bu ah maanaam muqaddima bi introduction bi tamit daf ci def ay études yu am solo yu mu li luñutu bu baax li nga xamante ne moom mooy affaire xadis yi nonu euh boy xol tamit te téere bu melni euh al imam at-tirmidhi wal muwazanatu bayna jami'i wa sahihayni bobu tamit amna téré bo xamantene euh ne sheikh nuruddin atra mom hafizahu la mom moko bind nga xamantene daf ci liñutu bu baax tamit téré hadith yi nga xamantene euh moom mooy euh, gëstu ba pare def ci ay gëstu yu am solo ci xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy sunan yu nekk ci sunan moom Tirmizi ba pare def comparaison bi ak téere xadis yi nekk ci ñaar saxeex d'ailleurs am na beneen kii taxriiju xadis maanaam naka la ko tuddee subhaanallah téere bi yoroon naa yoroon naa ko dama fàtte tur bi mooy fi imam at-Tirmizi di wax wa fil baab euh, naka nuzhatul albaab في قول الترمذي وفي الباب الله اكبر تيري لو مغا مغا مغا مغا بو خامتيني بو ام صلو ربي تخريج حديثي فو امام الترمذي واخ وفي الباب مو اندي حديث يوي ديف تخريج بي استرا ورا تيرل تام بو ام صلو آه. اه على كل حال كون آه، ييب اي تير لا خامتيني يو ام صلو لا تي بونتو تي بونتو بيغا خامتيني موم لانيو nek nga xamantene nit ki daf ko wara parce que yi nit da leen da leen wara comprendre da leen war a nànd xam leen parce que euh, euh, euh, en tout cas soo bëggee sew xam-xam téere yi benn ci wala maanaam groupe bu nekk fexeel ba am ci benn ci yéene yi ñu tudd ni groupe bu ne ngay fexe di xool wala nga am ci ñaar wala ñett et cetera groupe bu nekk parce que dina la permettre nga mëna xam bu baax alal yi et cetera ak yu aju ci yooyu ba pare dina tax tamit sa xam-xam bënn bu baax ci ni ngay defee étude comparative hadith parce que bii mooy bi ci gën a en fait alal yi moo dajale mboolem xeetu hadith yi en fait d'une manière générale tout simplement li ñu doon coow ci hadith buñ tàmbalee ba léegi alal yi moo dajale presque lépp presque lépp moo ko dajale waaw mooy bi ci gën a kawe comme ni ko Cheikh Ahmad Shakir wax rahmaullah moom mooy bi ci gën a ràññeeku